wala te kenn ci ñoom defu ko parce que gis ñu benn télé teg li nga xam ne moom moo di dépouille bi wala fañ koy dencee euh, fañ koy defee ci ci ci euh, këru dëgg gi waaye ñenn ci ay ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ñoom ñoo yoroon seen ay téléphone di filmer ak di foto ah, ci kaw firnde gi sax moom mooy fi nga xam ne ni moom la ñu tàntaloon kii di doomam di Waly Seck ak ñamu toogaloon euh, am na koo xam ne ni dafa ñëw ci rang bi pour jaale ndax nit ñaa ngi doon ñëw di jaale yor na téléphone am tim Waly di ko photo ba Waly sax xaw a xaw a xaw a parce que mm-hmm. déplané na ko mm-hmm. ndax xëcc na téléphone bi joxaat ko ko sax def na yëfi yëfi yëfi yaraange mhm. ndax dafa xëcc téléphone bi joxaat ko ko wan ko ne carrément li muy def àndu ci te mere na ko mhm. eh, kooku di ko jox la ko mu mhm. bu max ko pour mu avancer mu mel ni kooku sax eh, wan na ko ne carrément lii ngay def nii rafetul ci nit ki nekk na naqar nga ñëw amoo leen looy def lu dul tala tala filmer ak tala photo lu nu mel ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di rek internet yi daal nañ koy ñaawlu bu baax a baax nee nañu ñoom mënuñu gis nit ku yóbbaale ay téléphone ba ci ay morgue wala ñu ko yóbbaale ci ay almer nit ki photo et tout nee nañ daal loolu nañ ñuy ci dimbali bu baax a baax ba tax na ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi comme ça su ne nañ koy defee daan nañ koy commenter en masse ndaxte am na ku ciy wax naan aqiru zaman la ñu nekk nit ci boppam mu amatul kersa mhm. amatuñu kersa ba ci nit ku dee sax mhm. ak ay morgue ak yooyu amatuñ ci kersa mu mel ni kon dañoo dem ba Euh, fëkk suñu xel jëmale ko ci ci ci ñeme ñeme ñeme li nga xam ne moom moo di dee ak ñeme li nga xam ne ni moom moo di moom moo di nit koo xam ne dafa dafa faatu am na ci euh, ñuy wax tamit naan billaahi bu ñu ñaanalu suñu bopp perte nañu parce que nee na nit ñi ci boppam ñi la war a ñaanal ñoom ñoo du talati lenn lu dul euh, di la di la di la jéebaane wala di la def leneen nee na moo tax nit ki na ñaanal laataa muy dem parce que li ñu gis démb ak barki démb dafa dafa leen a tiital lool te nekkoon na loo xam ne bu ñu fàtte daan nañ ko fi indi ay toile lu bare bare parce que gisoon nañ fi ab nit boo xam ne nii dafa demoon ci ci ci ci ci fu ñuy jullee ci ay euh, sëkk yoo xam ne dañ fa doon jullee nit ki di ko di ko denc mu taxaw di di di photo euh, di photo wu moom ak bii mu mel ni loolu daan nañ ko daaw indi nañ ko fii li nga xam ne moom moo di toile siiwoon na fi mm-hmm. Sénégal ba ñëpp di ko wax donc dafa nekk loo xam ne nii kon day ñëw ak di ñëwaat mu mel ni ñu koy def aussi jar na ñuy taxaw di am seetlu ci ñoom di leen sensibiliser ci mbir mi di leen wax ni foo xam ne nii euh, xol neexu fa jaru faa wane bañ mm-hmm. loo xam ne nii yëfi yëfi reewande la wala leneen loo xam ne mu àndut ak la ñuy def mm. euh, nit euh, amaana dund am na euh, ree am na kaf am na waaye tamit bu ñu demee ba nga li nga xam ne nii moom mooy suñu borom daat ñu yónnee leen nañu ko nangu te bàyyi ba loolu jàll sax ñu mën a delluwaat ca ca lañ nekkoon bu ne nit mënu cee jaaree tuub donc daal ñoom ñu ngi sensibiliser ci biir li nga xam ne moom moo ci yi à que na ñëpp comprendre foofu hmm. xam ne euh, deedu jaas te hmm. ku mu nuyu si rek di nga xam ne euh, jour boobu nuy si na la hmm. te ku ci nekk ñu jàppale la ca dëj ba nga xam ne ni yaa ngi ci ay nekk ñu jéem laa doolee ci loolu waaye du rek dañoo war a ñëw di la di la di la distraire ci yenn yi. donc gis nga euh, Wally Seck ak ay ragam euh, ay rakkam ak i magam. jamono mm-hmm. ji ku leen yërëmul. Euh, indi leen soutien waroo leen nekk di di leen tegal. Mm-hmm. beneen métit ndax ku ne xam na ni seen demu papa ji nii daf daf bett na leen bett nañu ñun ñi nga xamante ni sax amaana. Mm-hmm. bokk ñoo ñoom dara te lii nii ñu gis ci réseaux sociaux yi dañu ko ñaawle bu baax a baax mais li si métti mooy boo waxee ñu ne la siiw du jaami borom papa Thione moo ko fi woyoon avant comme ni ma ko waxee sànq ci ñun journalistes yi avant ñoo siiw ay nit lañ dañoo am seen xol am seen i xel mhm. di di yëg bànneex di yëg euh, li nga xamante moo di euh, moo moo di naxar et j'ai beaucoup aimé posture bi nga xamante ne journalistes yi jël nañ ko mhm. ci décès bi parce que filmé nañ euh, d'accord mais bi ñu demee ba fi nga xamante ni fa la ñuy denc Pape Thion mhm. ñoom ñëpp dañoo wàccee seen i caméra teg ba ba ba nit ñi génn ñu commencé waat wéyal information yi bëri na ñu bëri ñoo xam ne dem nañ si dëj bi lu leen fa yóbbu mooy rencontrer les ñoom selfie ak ak yooyu noonu a nite xam nga fàtte avant nit ñi dañoo ragaloon dee tey jii boo déggee nit dee na yow sa xel yow tamit day dem ci keroog jour bi nga xamante ni peut-être yow tamit dina la dal parce que ku dul dee amul mm-hmm. ku nekk peut-être yaa ngi toog di xaar sa bis dañuy mm-hmm. ñaan yàlla rek mu daa mu daa di yéex mm-hmm. mais malheureusement léegi nit ñi ragalatuñ dee buñ gisee dee genre ça leur fait rien du tout seen xel ngi ci euh, photo seen xel a ngi ci filmer malheureusement am jot pour ñaanal ki nga xamante ni sax nag moom moo dee sax amatuñ ko a bi ñuy bind ci kii man loolu metti na ma trop mhm. parce nit ki wax dëgg neex yàlla boo ko ñaanalee sax jàppal ni sa bopp ngay ñaanal parce yàgg-yàgg di nga ko fekk si mhm. donc nit ñi wax dëgg neex yàlla war nañoo bàyyiwaat xel bu baax a baax ci anam yi nga xamante ni ñu koy def ba ci biir bàmmeel yi mhm. ñoo dugg di photo di def ay snap di wax ay yoo xamante pour man amul benn sens doy na waar waaye lu ñu ci mënti doon rek ah euh, yal nañu suñu borom euh, suturaal rek ah defal ñu suturaal àdduna ak alaaxira parce que loolu itam lu euh, mata ñaan la bu baax a baax ay ci dañuy jàll ci beneen info coxo waaw nañu jàll ci leneen rek leneen loo xam ne xaw na kole ak loolee ah, mu mel ni rek ñi nga xam ne ñoom ñooy ñenn ci internet yi la ñu jàpp moom moo di dañoo daal di fësal yenn ci ndaw joo xam ne nii nag fële ca Kenya la jëlee li nga xam ne nii moom moo di raw gàddu ñaareel ci raw gàddu yi nga xam ne nii doon nañ ko def ci ci ci concours international boo xam ne rek dañ doon jàng alxuraan moom moom di euh, Cheikh Diop mu daal di koy jël euh, foofee ca Kenya mu mel ni moom Cheikh Diop moom tam ba mu ko jëlee foofee ca Kenya xëy na bu mu ñëwee dafa euh, fekk dëkk bi ci ab mu xaw a jàll tuuti looloo tax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñenn ci sénégalais yi ndax daan nañu tàmm kenn koo xam ne ni rek da nga koo dangaa jëlee am ab raaye ko ci li nga xam ne ni moom moo di ci récital de Coran dañ lay daal di teertu defee ko ci anam ni mu waree waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñenn ci internet yi lañ def moom mooy moom moo am parce que nee nañu gëj nañoo gis euh, koo xam ne nii da nga dem ci concours yu mel noonu mm-hmm. teewal euh, li nga xam ne moom moo di sunu diine teewal l'islam dem jëlee ca raaya nga ñëw kenn du ko fësal wala sax kenn du fa taxaw ne la lenn parce boo dee nee nañu mbooloo euh, néew lool bokk na ci sax ñu ciy gis ay taalibe yoo xam ne dañoo yor seeni ay pot taxaw mu mel ni ñooñu loolee moom moo leen ñor ak ñenn ñoo xam ne ci ay famille am et nee nañ Sénégal warul toll foofu sunu aada ak sunu cosaan ak sunu njëriñ sunu diine nee na waruñoo mën a euh, nasaxal euh, lu ni mel euh, kii dafa demoon ba ca Kenya dëkk dëkk mu dem jël fa boo xam ne nii ku jël ñaareel ñaareelu place ba mhm. ci li nga xam ne moom moo di ci concours al ah, kooku lu ñu war a sëgg lu ñu war a la lu ñu war a fësal la pour xale yi ndaw ñi teg ci seen tànk moo gën ñuy jël li nga xam ne nii mooy yu négatif yi rek di ko jël di ko fësal ci kanam mm. donc ñenn ci internet yi la ñu def moom moo di ne ñoom nee nañ bu fekkonte ne leneen la loo xam ne ni tey jii nit dem na ko jëli ji ca bëtti ba ba jii daal nañ koy médiatiser daal di nañ koy jël ku ci nekk yaa nga yor sa téléphone di filmer ko photo ak di def yoo xam ne nii sax tey jii da koy fësal waaye nee nañ amaana lii ñoru leen moo tax tey jii mënuñu ko waruñu ko mën a fësal warawuñu ko def def leneen ak leneen mm. amaana aussi am na ci ñenn ci ay ay ay ñoo xam ne nii jël nañ ko ñoom tam fësal nañ ko wane nañ carrément ne Cheikh Diop demoon na foofee mais amaana tam ñi nga xam ne ñoom lañ koy fësalal muy askan bi nga xam ne ñooy seetaan ak di déglu ñoom ñoo talatul mbir mu ñu mel moo tax ñenn ci biir li nga xam ne moom moo di ci commentaire ñoom tam daal nañuy attirer seen attention di leen wax ne nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax ci li nga xam ne nii moom moo di ci yenn ci information yi ñu joxe ndax lii dafa jër fësal te it buñ ko fësalee du def lu dul gën a taaral suñu réew ndaxte moom mi nga xam ne moom moo di Cheikh Diop di ab ndaw boo xam ne jël na initiative am jàng alxuraan ba tey ji mu mën koo tari ba di ci jël deuxième amaana ay rakkam wala sax ay ay ay doomam wala ñeneen ak ñeneen ay magam war nañoo mën a war na mën a incité à ce que ñooñ tam dem defi euh, jëf ju ni waaye euh, du loo xam ne daal lu négatif la donc lu positif nañ koy gën a positiver di ko gën a wan tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi pour ñu mën a teg seen bët ci lu baax moo gën nee nañ ñuy gël jël loo xam ne nii lu safaanu rek à chaque fois ñu koy teg ci kanam dëgg la dafay revenir à sujet bi Awa Condé doon traité sànq rek bu nekkoon lu lu lu safaan la ay yëfi ay ñàkk fay def yooyu noonu yaa ngi gis partage yi mi ngi takkar naase ah mm-hmm. ci yi ah mm-hmm. euh, yaa ngi fàttaliku Eudoxie Yawo ak euh, Jabas ah. ak Aya Nakamura bi ñëw bi ñu ñëw ñu dem fësal leen ba mu fës ay ay ah mais la faute la faute à qui la faute à qui la Fatou Sow dama ne ko la la eh. faute <laughs> saw yi bëgg mburu yi bu ma bu ma ko waxati saw bi saw bi am na solo saw yi dañoo bëgg mburu ma ne ko la faute à parce que ñun <laughs> sénégalais ñun ñoo bëgg loolu tamit ñun kenn mm. xamul genre on veut une chose et son contraire ñun kenn xamul lan lañ bëgg li ñu war a def si lu baax dañ koy bàyyi di def lu bon te suñ paree ñun ñooy toog di ko waxaat mm. il faut que ñu xam li ñu bëgg tamit une bonne mm. fois pour dëgg la d'accord naa bu baax a baax ci mm-hmm. li nga wax ah mm-hmm. aja di nga ci beneen waaw nañu jàll ci beneen euh, madame Guèye daal di wax ci leneen loo xam ne tam ñor na ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo di interne ci mu mel ci journaux yu xëy xëyoon def ab taxaw seetlu waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk internet nag la def moom moo di ne weddi ba mu seet lu ni mel parce que ki nga xam ne moom moo di Mamadou Ndiaye di koo xam ne ni rek dafa bokk ci ñi bokk ak victimes yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan ci manifestation yi mhm. wala sax ñu amoon ci ay gaañu gaañu ñu ne ab collectif dafa taxaw boo xam ne ni rek moom moomu moom mooy coordonnateur bi di Mamadou Ndiaye Mamadou Ndiaye nag ñu xam ko mu bokk ak kenn koo xam ne ni rek di Cheikhouna Ndiaye ñàkkoon bakkanam fële nga xam ne ni rek moom moo di ca parcelle Mamadou njaay nag euh, ba mu pro euh, ba mu euh, taxawee rek ne moom mooy coordonnateur collectif boobee démb sax journée yi xëy ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñenn ci internet la ñu def moom moo di ne dañ koo weddi ba mu set. nee nañ moom mosul hmm. nekk li nga xam ne ni moom mooy coordonnateur nee na nu am na ci yenn ci ay famille yoo xam ne tey ji bañ demee laaj leen dañ ne carrément ñoom mësuñoo xam sax ndax collectif taxaw na ba coordonnateur bi am te moom la mu wax moom moo di ne rek dafay daal di mën nañoo sax jéggal ñi nga xam ne ñoom ñoo def yu wala sax euh, li nga xam ne moom moo di yoon daal di ci euh, euh, daal di wéer ay ngànnaayam ngir bañ a topp ñi nga xam ne ñoom ñoo def jëf ju ni mel wala ñi nga xam sax dañu ne ñoom la ñu supposé à que ñoom ñoo faat bakkan yi ñooñee nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñooñu bokkoon ci manifestation yi ndax nee moom bu fekkente ne dañ leen a wan rek kii di euh, njiitu réew mi di président Macky Sall amaana lu ni mel mën nañ koo teg ci suuf lu ni mel tam moom moo naqari ñenn ci ci ñi ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seeni ay mbokk ci ci manifestation yi nee nañu mm-hmm. mësuñu koo yónni moom mësul nekk benn yoon coordonnateur te it nañu seetaat bu baax a baax ana la moo tax mu wax li ni mel euh, ci kaw loolu tam ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo faree ci ci réseaux sociaux yi commenté nañ ko comme ça ne nañ koy defee nee ñu daal Sénégal actuellement moom moo toll foo xam ne nii euh, ku njëkk njëkk a yeewu rek da nga naan sa morom sàngal sawtaat nee nañu daal xaalis fi mu nekk nii jaral na leen lu ne ba tax na ñoom li ñu gis moom mu moo tax mu def ko moom mooy wàllum alal moo tax mu def ko te li tax mu def ko it dina ko dina ko dina ko réccu parce que euh, ak lii ni mu toll nga mën a taxaw ci ay ay télévision wala nga taxaw ak ay taskatu xibaar di di di di wax ni yow yaay euh, njiitu collectif boobu te fekk collectif sax amagul wala ñi nga xam ne yow ñoom ñoom nga wax ñoom nga jiite ñoom yëgaguñu tinuñu nee nañ loolu day daal di doy waar ba tax na daal ñoom ñi ngi invité à ce que nañ ñu bari bàyyi xel ci mbir mu ni mel te a wax ak moom na nga ne yi muy dem di wax et tout ndax collectif taxawagul eh, dara taxawagul te bu kenn jaarale xaalis ci loxoom wala lu ni mel ndaxte eh, collectif taxawagul te kenn jiiteegul ba moom muy nekk coordonnateur ba génn di wax ci seen place naan justice mën na bañ a def liggéeyam ci kaw président eh, teertu leen teeru leen wala sax mu gisanteek ñoom. man kañ li ma bëggoon xam mooy ñoom instant bii. Mm-hmm. ndax xaalis bi moo leen soxal wala seen doom yi nga xamante ne ñoom. ñoo dem man man loolu laa bëgg comprendre. Mm-hmm. parce que souvent yii nii bu amee je me rappelle le cas damay fàtte tur bi peut-être euh, euh, Khoudous mën na ma si aider en 2012 le jeune bi ñu rayoon Sangalkam tu te rappelles. Mm-hmm. Malick xaw ma Malick Ba xaw ma Malick Ba je pense moom itam façon problème euh, yii nii bi mu bi mu bi mu faatoo façon problème yi. ñoo ñoo ñëwaat ñu wax que dañoo recevoir sa famille au palais mujj ñu génn di am man je tamit lii dañ koy naxarlu ah. surtout ay doom ñoo ñoo dem. instant bi nañu sax ci ci di leen ñaanal ah di leen tuubal suñu borom yërëm leen jéggaleem surtout que ñuy nekk di coow si ay affaire xaalis wala ay affaire euh, collectif bi kii jiitewu kaa yooyu noonu et tamit yoon ah na def enquête ñu xam bu baax a baax ce qui s'est passé parce que euh, moom mii nii si euh, yi mu wax bokk na si que ne rakkam nekkul policier yi ñoo ko ñoo ñoo ko rey mais dañ ko poignardé yooyu noonu ñun suñu xel ñu koy jaxase dem nañ sax yoon nag war na def euh, enquête ci loolu ñu xam ñi ñu rey ñëpp ndax police euh, ndax policier yi wala gendarme ñoo leen rey wala yeneen nit ñoo leen rey yooyu noonu loolu bëgg nañ ko xam dem nañ sax ba leeral ci boobu parce que mhm. moom ci bedd gi dañ ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo làqu ba pare parce que moom mi nga xam ne ni tey ji moom mooy euh, magu Cheikhouna njaay moom mooy Mamadou Ndiaye moom moo ne moom moo jiite collectif bi naa Ndiaye moomu dañu ko daal di jam ay ay ay paaka ci put bi ba mu génn àdduna bokk bokkul ak ki nga xam ne ni moom moo di eh, Cheikhouna Wade Cheikh Wade bi nga mm-hmm. xam ne ni tam mm-hmm. croisement eh, lañ ko boomee eh, moom ñu boomee ko ak balu pistolet ñu ne ñi nga xam ne mm-hmm. ku ne gis na ko ba tax na lu ni mel sax daan nañ ba lii ko parce que moom nee nañu moom waru wax parce que moom il il il paraît ay ay ay samba booy ki nga xam ne moom moo di rakkam ci tax muy wax alors que kii ki ñuy wax takk der yi la xalaat ne ñoom ñoo ko boom gis nga mu mel ni ay ñu ngi ñu ngi indi sax ay ay xalaat ndaxte bakkan yëpp yem fa yàlla donc amul euh, ku xas ba dem xas nga ba dem nañ leen ñaanal justice def liggéeyam ki nga xam ne ni moom moo def la warul ñu nekk ko carrément defoo li war ñu rek koy teg ci yoon moo gën ñu nekkaat ci di def euh, ak di wax naka su dul noonu te ñoom rek ñu leen di ñaanal euh, suuf sedd guy ci seen kaw ca fay tëddee amiin amiin mhm. dafa jeex wala des na des na léegi xoolal benn bi ci gën a saf mu jukki ko <laughs> dama bëgg yu saf yi ah. <laughs> mun ko def bu saf ko def yemam mbaay rek. <laughs> nañ wax ci di nañ jëw euh, nañ jëw dañuy <laughs> <laughs> waaw nan dem ki nga xam ne nii moom moo di Barthélémy Diaz mi nga xam ne nii ci jamono ji ñu wax ak yéen ay coow daal mi ngi dikk ci moom ndax semaine bee passé bi mm. manifestation yi amee ba jàll ñu ngi doon wax naan Barthélémy Diaz avant sax muy am dafa dafa dafa commencé li nga xam ne nii moom moo di rek ab xiifal foofee nga xam ne ci kaso bañu koo bañu koo denc. Mm-hmm. ginnaaw bi nga xamee ni moom lañ ko doon toppee ku ne xam na ko waaye tamit nit ki rek autant pour moi Guy Marius Sagna laa bëgg a wax moom moom mi nga xam ne moom moo di Guy Marius ku ne xam na ne ah, ci jamono ji ñu wax ak yéen li nga xam ne moom moo di coow rek ah, topp na ko ci mbir mi ndaxte ah, fépp fooy xool ci réseaux sociaux yi da gis ñu def photom ñu gis ñuy def free Guy Marius Sagna ñii di ko ñaanal liberté moom ak ñooñam yi nga xam ne tey jii ñu ngi leen denc fële ci ci kaso ya ba tax na tam ci loolu tam ñu ci indi tuuti leeral ndax ñu ngi ne Barthélémy Dias dañ koo jëlee ci camp pénal yóbbu ko fële nga xam ne Guy Marius <laughs> <laughs> bu baax boobu <laughs> maa ngi jégalu <laughs> Guy Marius Sagna dañ ko jékkati eh, yóbbu ko fële nga xam ne moom moo di ca ca ca kaso yu Sébikotaan eh, loolee dañ koy dëggal ndaxte ki nga xam ne moom moo di avocat bi gis ngeen li mu wax nee na lu ni mel eh, hmm. comme ñi ko doon kaas nee na dara nekku ci parce que bu fekkente ne jël nañ ko déplacé ko amul benn ngaañ boo xam ne ni am na ko ci hmm. xëy na kaso yi li mu fees moom moo tax te waaw waaw comme sori famille bi mais comme comme kooku di di di di na ba dalal xel yi daal yaakaar naa ne xelu ku ne mën na Espagne rek lañ yóbbu ñenn ci ay ñooñam tam ku ci mel ni Assane Diouf et jël nañ leen tam euh, déplacé leen yóbbu leen foofee mm. mu mel ni sax ñenn ci internet yi lañu xamle moom mooy mbir mi la tax ñu jël leen déplacé leen ak ñaan gi ñu leen leen a génne wala sax parewuñ pour génn leen loolu lépp dañuy bàyyi rek wànnentu ñu xool ko fu muy mujjee ki gëtam waaye leneen li ci bees moom mooy que moom euh, Guy Marius dañu ne dafa bëggoon a amal ab xiifal foofee ca kaso ba waaye ginnaaw bi nga xamee ni kii di euh, euh, kii di sëñ Mountakha Mbacké mhm. daan nay génn ba daal di euh, joxe ndigal ci loolee nga xam ne ni wax na ko ci côté nguur gi ak waa m d ci ndigal yi nga xam ne ni jox nañ leen ko ci xew-xew yi nga xam ne ni am na ci biir réew mi moom Guy Marius Sagna ci la jógee ci ndigal googu daal di bàyyi niki démb lënd bi nga xam ne ni dafa bëggoon amal ab xiifal mhm. ci la ko daal di ci la ko daal di dakkal donc information yi tukkee ci moom mooy mooy loolee te it ñi nga xam ne ni ñoom ñooy rey seen bopp actuellement ci réseaux xam ne moom mi ngi ci jàmm ak ci salaam comme ni ñu hmm. dañ koy torturer et euh, ki nga xam ne moom moo di avocat am moom mi am ay nouvelle génn na ba assuré na nit ñi donc nañ ko ñaanal continuer di ko ñaanal jekk hmm. mais hmm. yenn information yoo xam ne ñu ko ciy génn yu baree baree bari nañ ko daal di arrêté parce que mën nañu euh, xërtal ñi nga xam ne ñoom ñoo di famille am mën nañu xërtal ñenn ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko jël def ko ci seen biir xol ndaxte ñi bari ñu ko jël def ko seen biir xol ñoom ñooy taxaw di wax fii euh, Free Guy Marius Sagna ñoom ñoo koy ñaanal jekk à chaque fois donc ñu xam ne rek ne fa mu nekk ca Sébikotane la ñu dégg ci avocat mu wax ko mooy mu ngi ci jàmm mu ngi ci salaam lañ ko déplacé jaadu na nee yoon la donc nañu bàyyi li nga xam ne nii moom mooy yenn ci yoo xam a xiifal ni ki démb tam mu jéewu koo mu hmm. jéewu koo xiifal effectivement loolu moom je pense que euh, moo di avocat wam génn wax euh, génneel ñu si ay information yu leer nañ parce que euh, quoi qu'on puisse dire tamit intox yi bëri woon na torop hmm. ci li nga xamante ni moo di incarcération moom gi Marie Sagna ak ñoom Clédor ak Assane Diouf donc dañuy rafetlu bu baax seen avocat yi bu ñu génnee wax au moins euh, dalal xelu ñi nga xamante ne ñooy xam ne ñuy dalal seen xel bu euh, baax a baax ci Tunkara yi nga xam ne nii daan nañ koy teg loxo ci États-Unis waaw loolu est-ce que duñ Tunkara hmm. mi nga xam ne da doon euh, wëy di def ay vidéo yoo xam ne da doon ŋàññ état du Sénégal hmm. waaye tam di jël ay yenn ci ay parole yoo xam ne rek du ko doon yëkkati ñu ne neexul ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñi nga xam ne ñoom ñoo di état bi. mu dem sax nee nañu bay def menace de mort. lu ni mel